sécurité ci biir réew bu Sénégal. non non force de l'ordre police gendarmerie armée li ñuy euh, les forces de défense et de sécurité. Mm-hmm. ñu ngi am hauteur. am nañ hauteur de. Mm-hmm. Mm-hmm. wax nga maa ngi koy wax sànq ci ci tubaab. on a d'excellents éléments. ci police. su may jël dama naan majorité bi ils sont hyper bons. gendarmerie même chose. armée nationale moom gongo lu ñuy mën a wax ni chapeau. mais xam nga lan mooy wax bi euh, ñu leen kan moo leen rax lu tax ñu rax leen kan moo mayee ñu mën leen a rax ba mën yenn yi di am Mansour mu ngi koy wax ci force de l'ordre yoo xamee ni dañuy mel ni ay nervi nga mën leen a jaawarle ak ñu ñu ay ci ay jamono caloble wala xawma lan marron nuñ koy wooyete Euh, ñoo ñu àndoon ak Macky Sall au début parce que lañu doon sol. Mm. yenn saay mais on a sorti ici en communiqué pour interdire le port de certaines tenues yoo xam ne dafay nuru garde rapproché au président de la république fii lañ ko génne ci communiqué ministre de l' intérieur ministre des forces armées xaw ma ban ministre encore di xamle ni loolu dañ koy tere loolu moo indoon lan ñu démanteler lu ñu woowee les milices ñu naan ay nangam sécurité ak nangam sécurité te la ñuy soloo. bu ñu taxawee nga mën leen a jaawatle ak garde rapproché par exemple yu président de la république wala ñi nga xamee ni dañu bokk ci euh, brigade d'intervention de la police wala GIGN euh, di euh, ñi nga xam ni ñoom ñooy corps d'élite bu gendarmerie boobu police gendarmerie armée les corps militaires paramilitaires ñoom ñëpp ils sont professionnel ndax dañ ko jàng yàgg ci. lan moo waral fitna bi. ñu jëmal le plus souvent ci askanu Sénégal. non du ñoom ñooy indi fitna. xam nga fitna bi fan na c' est l' état central xam nga luy fitna bu jógee ci état central. Mm. mooy man ministre de l' intérieur man ministre des forces armées mi yore man ministre nangam bi nga xamee ni am naa ay takk yu nekk sama yoo xam ne maa leen chef nuñ ko mën a waxee. ma xool situation boo xam ni mën naa fa sax bañ a yónni takk der naa yónni sociologue bi kii doon wax léegi wala psychologue bi Mansour doon wax léegi naa yónni kilifa diine bi nga xamee ni am na fa. kàddu ca koñ ba wala ca gox ba pour kooku jéem a seet nu ñuy waxtaanee ba nga xamee ni fitna du am ni ñu duñu génn manifestation du am euh, responsabilité état état xam nga leen situation am ne Ousmane Sonko moo def nangam diw moo def nangam <coughs> mais balaa ngay àgg foofu seetal nooy fexe ba situation ba bañ am ci naka mooy diw la ñu wax ne dañ ko topp ci yoon bañ ko waxee ak léegi safe fait combien d'années pourquoi est-ce que depuis le début de cette histoire-là on l'a pas réglé mm-hmm. bu ñu ko waroon jàpp ñu jàpp ko je n'ai absolument rien contre Ousmane Sonko absolument rien du tout mais pour man l'État a failli et l'État fay failli depuis le premier jour tuumaal nañ la nañu tàmbali mbir yi très rapidement soit ñu teggi tuuma mën la bàyyi nga libre mën a dem ci li nga bëgg a dem wala ñu confirmer ni effectivement liñ la liñ la tuumaal yaa ko def ñu tëj la ca lañ la war a tëj teg la daan yiñ la war a teg ci wàllu woowu mais quest a fait dañ ne non non tuumaal nañ ko waaye non tuuma boo xamee ni boo xoolee tous le dossier ci la ñu wane yëpp ci la ñu wax yëpp nga xam ne fii am na lu ci lu ñuul am na lu ci dul dëgg nañu waxante dëgg rek am na loo xamee ni dans ce dossier je suis pas dans le dossier euh, liñ naan je suis pas dans secret des dieux la xew seen diggante fekkewu ma ko kenn nag ci doom réewum Sénégal fekkewu ko. personne muy pro Pastef muy anti Pastef muy contre nangam muy état amu ci kenn ku fekkee ci biir eh, salon de massage ba ku fa nekkoon. Mm. ku mën a wax ne ni lii am na gis naa fee nit yëkkati kaamil di waat naa ne nangam amul yaa ko fekkee. personne mais l' sa responsabilité depuis le début su ma nee l' état est pas le régime ay Macky Sall APR wala non c' est l' état central. nga xam dafa am ay institution président euh, ministre nangam nangam ak nangam responsabilité bi xam moo nekkoon lan fonctionnement wu justice ñu teel a may justice ay jumtuwaay yoo xamee ni dina mën a def liggéeyam setal wala confirmer tuuma bu ñu ko setaloon depuis le début kon deux kon euh, manifestation yi am quatorze mois du am kon lii xew nii actuellement du du am te ñaanuñu ko lii xewi ëllëg tamit il faut que ñu anticiper ko on nous dit euh, audience spéciale le euh, 23 euh, muy mardi les gens qui commence waxuma sax xam nga sànq yaa IA bi jël décision ne élèves yi duñ jàngi am na parents d'élèves yu mel ni man dañuy naan sa doom doo jàngi. Mhm. bu parent yu bari nee suñu doom du ñu jàngi IA bi amul beneen possibilité lu dul ne ni nañu far tëj lépp parce que parents yi responsable. et tous les parents sont responsables ndax bëgg nañu seen doom jamono ji amul waajur bu dul tiit par rapport ak ay doom yuy jàngi école wala yuy mais xale dina génn deux heures ne xaaral ñu petit camp ci koñ bi. Mhm, mhm. ñaata yoon. parce que mhm. dem taxaw ci suuf poto lampe bi euh, waxtaan wala petit camp wala n'importe quoi wala quatre cases ci lañ ko daan defee di tennis yow nga ne nag léegi yow je vais priver de liberté tous ces gosses là tout simplement parce que. yaa une situation tendue qui se pose l'État est principal responsable. situation tendue boobu bi Birahim Touré yaa ngi koy wax ñu gis ni kenn ci ñi layool Ousmane Sonko di Juan Branco nekk avocat am di nekk ca diwaan bu France génnee na ab bataaxal ci compte Twitter am nee na li nga xamante moom mooy exaction bu force de l'ordre yi def jëmale ko ci Sénégal am na ci ay ñoo xamante ne daal bind nañ ko maanaam am na ci ay courrier yu bëri yoo xamante ne toll nañ ci junni. ay preuve c'est un avocat. Et en tant qu'avocat, man j'aurais euh, peut-être souhaité que ce soit les organisations de des droits de l'homme au Sénégal. Comme Africa Jam Center bi génne benn benn benn téere pour xam le ni hmm. moom lii la gisee wàllu démocratie Sénégal lii la gis ci wàllu yooyu ak yu mel noonu am na ay ay ay ay kuréel yoo xamee ni ñoom ñooy saytu ndegam effectivement am na ay exactions yu jóge ci force de défense et de sécurité wu force de l'ordre jëm ci askan wi c'est pas un avocat bu nekk fële ca France xamul lu xew Sénégal hmm. ne ni dafay plaider benn dossier ne ni yónnee nañ ko ay mille bataaxal man je ne prends pas pour argent comptant ce que ma di ka nekk bitim réew xam nga kan laay mën a dégg hmm. ñu ne ma euh, mu njaay Cissé bu 3 ONG 3D def na ci benn gëstu ànd ak ñu mu ànd ak ñu ne ma Birahim Seck def na ci gëstu gis nañ li fi xew ñu ne ma Alioune def na ci gëstu gis nañ li fi xew ñu ne ma euh, euh, Amnesty International euh, commission comité de de défense des droits de l'homme PAPSEN ak ñeneen ak ñeneen ñu ne ñi ci biir Sénégal def nañ ci gëstu comme ni ñuy waxee nii ci biir prison yi ñu ne la par exemple observatoire bi yore wàllug saytu luy xew ci biir lieu de privation de liberté yi def nañ ci ab gëstu man ñooñ laa mën a déglu mais du ma déglu que ka nga xamee ni hmm. avocat nga mais bare nga am foo féete ndax avocat nga buy layal kan Ousmane Sonko comme avocat bi layal euh, Mambay di tubaab hmm. Mambay ñaa di tubaab la mu wax man gëw ma ko gis nañu sorti également yi xuwaan di def Birahim à chaque fois ak ni muy dalee ci suñu institution yi aussi euh, parce que may hmm. Sénégal comme su ma nee Sénégal mooy l'état central c'est pas parce que tu es avocat quel que soit foo mën a jógee même sénégalais. Mm-hmm. nga am sañ-sañu dal ci kaw suñu institution mais li ko indi mooy li Mansour doon wax sànq. c'est mm-hmm. parce que dañoo nasaxal suñu institution. dañoo dem ba fulaalutuñu suñu institution. ci mm-hmm. biir ñun bu ñu fulaalul suñu institution waaye ku jógee bitim réew daf ñuy du ñu fulaal. c'est pas autre chose c'est-à-dire tey man sénégalais. lambda wala citoyen sénégalais wala homme politique fu mu mën a bokk. ma ñëw je jox ma benn gëdd justice jox ma benn gëdd force de défense et de sécurité jox ma benn gëdd président de la république ba pare nga ne non yow mi jóge bitim réew ñoo jox gëdd samay président wala sama justice wala samay force de défense et de sécurité déedéet nañu naan ah kii comme. Euh, fulaalul njabootam kay man bu jóge bitim réew du mu leen fulaal ñaari nit ñuy nekk ci benn kër ñu gis ni respecté wuñu seeni waajur respecté wuñu papa respecté wuñu yaay ba pare keneen jóge bi ci biti ñoo respecté seeni i euh, xaw a am lu ñu wax ak seen i parents ñoom ñu xuloo ko dañ naan yow li ñu gis nii li tax ñu bañ a respecté say parents yow yaa ko njëkk wane parce que yow respecté say waajur te loolu moo fi am exactement ci tubaab bu jóge fële bitim réew naan nii la demee réew mi fii am na lii qui me montre des preuves mm-hmm. mais que l'état central je le répète l'état central prenne ses responsabilités ndax tey bu ñu ko ñàkkee fulaal état central moom moo def lu tax ñu ñàkk ko fulaal bu ñu ko ñàkkee bu ñu ñàkkalee fayda lu état central di def di wax c'est parce que moom moo deful loo xam ne war na ko def la preuve avec cette histoire d'autopsie un ministre de l'intérieur avant de parler ou de communiquer ba signee ko mais garantie au moins li nga yore ci information war ko joxe information yu wóor la lu fiable lan moo la nga ne am na ku lañu gis mooy ni am na lu bënn yaramam ubbi nañu enquete def nañu autopsie dañuy xaar autopsie bi noppi ñu mën a xam lan moo ko waral waaye nga ñëw ne ni eh, arme blanche ko rey nga ñëw ne kenn ni hélice eh, pirogue moo ko rey autopsie yi ñëw wane ni li nga wax ñaar yépp amu ci benn bu ciy dëgg mais attention lool moo tax nag du ñu fulaal suñu état du ñu fulaal suñu institution parce que au sein de nos institutions mm-hmm. mais lu leen neex la ñuy bind wala ñu lu leen neex ñuy wax wala ñu koy doxee te loolu du yoon aywa mu ngoog càllalum ñu jeexal ak